ami internet bu Actubuzz TV salaam di jàmm waaleykum jëm képp koo xam ngi toog instant bi dina bàyyi xel saa su nekk mbégtalu ñu am contentement ko xam te nii fu waay mënti nekk rek dañ looy seet ci euh, waxtaan ak yow ñaan ci nag ak ki nga xam ne mooy euh, Sénégal Média tey ñu seet ci ñoo xam te nii euh, nekku sax dañ leen di présenter ci Sénégal waaye nekku tamit dañ leen di présenter ci côté li nga xam ne mooy côté TikTok ndax marqué nañ seen i ba tey doo wax cinq tiktok euh, wala tiktokers yi gën a siiw te doo leen ci boole muy euh, Boss ak ki nga xam ne mooy Oumy tey ñoom la seet tey Sénégal Média ak Actubuzz TV boos ma siyaar la nuyu la. salaamaaleykum maa lay dolli ziar moo frère maa ngi nuyu Sénégal yëpp. Boss bi ma xam ci tiktok bi ak Boss bi du benn de yëkkati voix bi waaye. <laughs> non xam nga tamit personne bi la ak personnage bi rek. d'accord xam nga maa ngi nuyu ñëpp di nuyu Sénégal yëpp di nuyu kilifa diine kilifa aada yi. Uh-huh. di nuyu. képp koo xamante ne nii rek yaa ñuy bëggee uh-huh. soit nga nekk suñu frère wala suñu grand frère wala suñu petit frère wala suñu yaay yi nga xam ne uh-huh. dañoo sonn si ñun uh-huh. ak tamit suñu papa yi maa ngi nuyu ñëpp su ma limee damay jóg hmm. alors merci beaucoup joxoon ma joxoon ma ummi noo noo def mbaa yaa ngi ci jàmm alors nga nuyu internet ñu suivre à travers Sénégal Média ak Actubuzz TV salaamaaleykum waa àdduna maa ngi nuyu nuy sama yaay nuy sama papa di nuyu Abdourahman mi nga xam ne moo dalal tey. léegi looy re taalal ñu kilif. léegi looy re. <laughs> Ah, rek merci beaucoup alors tey ñoom la ñu dalal tey muy ummi ak yi ne mooy boss alors ni ma ko waxee sànq sama njëmeen wax bokk nañ bokk ngeen ci tiktokeur yoo xam te ni gën na leen ràññee alors euh, bala may ñëw sa diggante ummi ak ngeen xamante yooyu bos gisoon naa la nga doon ànd ak Fallou ak maam mm-hmm. gisatuñ leen ngeen ànd lan moo waral loolu. non loolu dara parce que Fallou euh, amaana man ak moom du ñu ay tiktokeur yi dox daje non non ñun du ñu ay tiktokeur ñun ay artistes comédien la. Uh-huh. maanaam soo déggee sax nekkatuñ sax ay artistes comédien. Uh-huh. maanaam ay artistes lañ. Uh-huh. kon boobu du ñu ay tiktokeur. soit jusqu'à tiktok bi la ñu gars yi gën a ràññee. mais visé wuñu pour nekk ay tiktokeur quoi. xam nga tey bëgg nañoo nekk artistes yoo xamante ne nii niveau international. pour sénégalais suñu ñu aar bi dépassé fii. Uh-huh. ñun loolu moo ñu tax a jóg. Uh-huh. Fallou nag boo gisee gars yi dañ ma koy laaj lu bari. waaw Fallou man ak moom chaque jour ñu ngi déggante. Uh-huh. yenn saa yi damay dem di ko filmer mooy filmer. mais tamit tey aar niveau yi dafa war a dépassé quoi comme si que yaa ngi may gis ak mère tey nga gis ma ak maam. suba boo ma gisee ak kii bu mu la jaaxal. yaa ngi dégg. parce que chaque jour rek dañuy pour ñun lépp lu ñuy def rek dañ koy jox Sénégalais. xam nga. xëy na nag fi ñu toll nii concept yi daa bokkul rek. Uh-huh. xam nga moo tax mënuñoo boole ñaari kii yi quoi mais maa faara dara. <laughs> ma woo léegi sa kanam ngay dégg. bàyyi ma ñëw parce ma sama ko dama dama ko nam alors ma taxaw un peu ci maire bi nga bi nga bi nga wax léegi lan moo waral gisatuñ la nga ànd maire ci ci yi nga daan def. non loolu dara xam nga tey. Uh-huh. comédie dafa am. Uh-huh. mais leçon de vie dafa am. soit boobu noonu ñu ngi jàngale. ñu ngi ñu ngi ñu ngi comédie pour sénégalais yi di reetaan di kaaf. mais tey dañoo indi leçon de vie pour nit ñi di jàngal comment munoo boole jàngale ak reetaanloo bu yàggee dañ naan kii dafa soof. Mm-hmm. moo tax jusqu'à gisutoo leen ma ak maam bi. Mm-hmm. waaw c'est ça moo tax jamono ji nag. Mm-hmm. reetaanatuñu. jusque dañoo ñëw pour nit ñi bàyyi xel ne. handicap si Sénégal lañ bokk. handicap si nit ñi lañ bokk. ñu valoriser handicap. maanaam jox leen cër bi ñu moom. xam na ñoom si ñun lañ bokk. di joxaale leçon de vie ñu xam ne handicapé. Uh-huh. du du ci kii quoi lépp rek ci. esprit la esprit la quoi. Uh-huh. alors damay taxaw un peu dinaa ñëw ci ummi mais euh, euh, sa diggante ummi fan ngeen xamante ummi loolu du du benn yoon ñu koy répété. Uh-huh. yaa ngi dégg xam naa la wax bu bëri wax bu yàggee day soof. mais fi la lépp leeree de. waaw fii la lépp de fii la fépp fépp la lépp di leere fii rek la fépp di leeree ak <laughs> kër leer waaw parce que moom loolu leen def vraiment. mu am dëgg la xam nga mais tey. sama diggante ummi. Uh-huh. amaana weeru koor bi lañ xamante. Uh-huh. mais damaa jàpp ne suñu diggante ñun ñaar. Uh-huh. loolu programme mbiru suñu borom la. yaa ngi dégg. man asa xaw ma sax fan lañ xamante. loolu soo ko déggee xam naa ko. ci ci zaar mais xaw ma ko ci baate. d'accord ndax lii du xamante un an non non. bañ xamante matul un mais lii nii damaa xam ne mbiru suñu borom la rek. kenn mënu laa wax ne fii lañ xamante. waaw loolu joxal ma joxal ma joxal ma joxal ma joxal ma ma ummi alors ñu ñu ngi lay ngeen ngeen wax bu baax ci bu bula bi ah pour pour que son bi gën a li ma laaj ci léegi rek laaj dama la ciy laaj un peu rek ñu mën a avancé sa gën sa diggante boos moom nee na xamatul fan ngeen xamante na ngeen de ba xamante est ce que rappelé wu nga kañ ngeen xamante comme ni la ko waxee rek mmh. ñun ñaar maam moom ba ñu xamante yàggul mmh. mais mi ngi mel ne xamante dañ man pour man bañ juddoo la xamante ndax yàggul mais. Mhm. xamante bi daal. Mhm. comme comme lu lu yàgg daal. Mhm. noonu la demee. alors naka nga jàngatee gis-gis sa gis-gis ci li nga xam ni wax wax na ko muy euh, quel que soit alpha pour man andi handicapé du si du si cër handicapé ci ci xel la. ci xel la quoi parce que bëri nañu dox ñu bëree bëri seen yaram lépp lépp mat te seen xel dafa andi handicapé man du ma du ma tuddee loolu côté andi handicapé alors naka ngay jàngatee li nga xam ne wax na ko ne. peut-être yenn handicapés dañoo war a boole ci si ci suñu biir. li waxee fenn la. Hmm. mooy tey jii nii ay ñu bari ay handicapé yu bari. duñ nangoo duñ nangoo di génn seen kër. Hmm. dañuy tëju ndax lu tax loolu du lenn du ci ñoom de. Hmm. dañuy jàpp ni tey jii bu ñu génnee nit ñi dañ leen di ber. di leen kii di leen def ay affaires yoo xam ne mel ni comme si ñoom bokkuñu ci nit ñi. amaana ka demeewul noonu. fii àdduna la man pour man. Mhm. ñun ñëpp benn lañ. ñun ñëpp man pour man ñëpp ñoo war a bokk ndey ak baay. Mhm. ànd amul kii lii moom daa manqué amul lii manqué ci xool lay nekk. Mhm. man loolu laa jàpp. alors comment naka la lay def Oumy bu toog di di di di def li nga xam te ni mooy euh, euh, di conscientiser nit ñi euh, ànd ko góor naka la lay def. lii moom daf ma neex trop wóor na yàlla parce que man lii bañ koy soogee def. xaw ma ne woon ni sax nii la ko ñi ñi di bëggee. Mhm. parce que man. continuer continuer naa complexe bi. cat la xam nga. <laughs> Ah. premier jour noonu ngay ñëw génn nii xamoo ba xam nit ñi dañuy bëgg wala dañuy bañ. Mhm. léegi xam nga loolu mënu ñàkk ma joué sa man damaa tiitoon sama na ay waay nit ñi buñ ko seetaanee ba duñ kii nii. Mhm. wala kii xamul boppam rek yooyu noonu. mais demeewu noonu malheureusement nit ñi seetaan ko ñëpp bëgg apprécier. ñu dooleel alors damay taxawee un peu bala may bala boos alors euh, euh, d'après que li ma jot a dégg information yi ma parce que su ma mhm. yi ma jot ci ci mhm. mooy nekkul loo judduwaale. judduwaale ma ko accident la. du euh, moom da doon football léegi ma ànd moom. mooy mooy moom moom mu xamu ni woon sax maa ngi koy topp mm-hmm. moom mu dem man ma daw topp si ginnaaw léegi sama yaay sama mag bu góor bi dama daw wëri parce que tali bi wóor parce que ñun ñu ngi dëkke woon ci tali bu mag bi noonu mm-hmm. léegi man ma daw topp si ginnaawam daw naa nag ba daw naa ba jéggi tali bi sax mm-hmm. sama mag bu góor tamit di daw di jéggi ci la super bi di ñëwee man ma daw bu ma ko léegi super bi ci la jaaree sama kaw ça veut dire que sa père bi dafa bëggoon dal sa mag bu góor yow nga sauvé ko après naka la oh. demee bi nga après bi nga pare jógee foofu noonu non hôpital laa yeewoo moom parce que damaa yeewu rek gis ñu band sama tànk bi may laaj am sama tànk an a tànk alors naka la la def naka la naka la nga koy dundee je veux pas sax dugg ci mais pour ñi nga xam ne comprendre ñu am ñoo xam dañuy suivre Actubuzz ak Sénégal Média mhm. te comprendre ñu accident bi naka la demee yooyu alors nga xëy gis ñu bànn sa tànk mu nekk loo xam te ni xaaroo ko woon parce que nit ku mhm. nekk doo xaar dara mhm. après naka nga koy dundee non métti woon na trop métti woon na trop ci man parce que temps yooyu noonu ba ma dalee yooyu noonu ba wér naa ak yëpp mais nangu ma woon sax di génn yooyu noonu Wala beeke yi sax nanguma ko oneer mu xolam benn tey c'est un peu triste parce que bàyyi gis boss mi commencé ah di di am nu mu demee c'est c'est un peu triste alors euh, euh, euh, un peu ma taxawaat un peu un peu ci ci yow ban séquence nga mos a joué sa diggante ak boss mu am nu mu la def. bari na moom parce que li ñuy gisee yëpp mën naa ne yëpp a may tuuti parce que yi ñuy gisee yëpp a am solo.